asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi yéen waa ahlu tasawuf yéen ahlullahi wa xaasatu yéen ñi nga xam ni tànneefug yàlla ci la leen yàlla tànne ngeen nekkal ko fi ci diineem ji di ko taxawu di di muñ coono yi ak di muñ gàkkal yi leen nooni yàlla yi ak nooni diine ji di teg te mooy wahabiyatul yow mi waaw coronavirus bii di lëmbee àdduna si dafa nekk marab marab boo xam ni li muy def da koy def jooni jooni nga gis ko waaye am na lu ko yées fuuf feebarul xol buy yóbbu diine yi jullit bi xaaliqatu diini feebar boo xam ne wat diine ba mu defub nel fondang muy ak wax ma bëgg ñu ànd déglu noonu yàlla bii di suñub noonu ñu dégloo ko xel ak xol tamit fi anin waahid déglu lim ëmb ci yàq ak ni ko yàq gënale lu baax ak li ko ay fen jaral ba ci fenal yàlla ba ci fenal yonent bi sallallahu alayhi wa ba ci fenal taarixu islam ba ci fenal saxaaba yi muy waajoo xam ne man laajte naa aw turam toog naa diir bu yàggit waaye joxe suma tur wi nde su ma xamoon turam dama cay jaar ca digg ba pour ñu xam ni saay-saay sàngam moo moom wax ji mu bañ a jaawaloo di dugg ci laam-laam la ñu naan ku moom wax ji moom danaa leen tegal kàddoom yéen ñi ko xam da ngeen xam ki moom wax ji ba pare nag wan leen li mu wax li ci nekk lépp lépp ci ay fen te moom waroon naa mën a dem rek toog benn place di tudd boroomam subhanahu wa taala di jéggul ay bàkkaaram wala muy jàng alquran wala muy liggéey liggéey bu ko mën a jariñ ci diineem mbaa ci addunaam waaye defu ko déglu leen li muy wax waaw sëriñ Cheikh Matia moom ah, la dajee luy wane doon gum doon bidaa ak doon gum doon lu safaanoo ak diine dafa bari lislaam dafa tere ñuy topp jeexitu yonent yi ak jeexitu nit ñu baax ñi di fa def ay jaamo yàlla ak di ko màggal loolu lislaam da koo tere nee na lislaam dafa tere ñu topp jeexitali yonent bi ak jaar-jaari nit ñu baax ñi di fa jaamu yàlla mu ni lislaam da koo tere mulaaxaba seetlu bi ma bëgg ngeen njëkk ko seetlu pour ngeen xam day fen bu fekkonte ni dafa cee xam dëgg-dëgg ak tere xanaa tere ga duñ ni xaalal islaamu xanaa duñ naan xaalal islaamu wala jaa fil islaami xanaa kay dañ naan ndàngam tere nañ ko qaala allahu wala qaala rasulullahi su bëggee fen bëgg a nax nit ñi rek ci lay jël naan lislaam da koy tere l'islam da koy tere fan la ko teree ndax alquran a ko tere wala xadis la ko teree wala jaar-jaaru saxaaba yi la ko tere bu ñu indeelee alquran ni ñu alquran dafay tere fu nit ku baax jaaroon jaamu fa yàlla nga jaar fa jaamu yàlla bu ñu ko indilee ñu xam ne alquran ñu ko tere fa ala rasi wal ayni wala mu indi xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ala rasi wal ayni wala mu indil ñu li saxaaba yi dëppoo fa ala rasi wal ayni wa illa na bàyyi fenam yii te ragal yàlla na bàyyi fenam yii te ragal yàlla sayiduna abdullahi ibnu omar ibnu alxataab moom moo daan wër barab yi mu xam yëpp yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas faa jaar julli fa muy wër barab ya ba xam ko dem jàpp julli fa te lii lu ko lu ko lislaam saxalal la maanaam lu sax ci téere yi la te sax gi bokk na ci li koy firndeel ibnu taymiya mi nga xam ni mooy baayu waa ji ci wàllu ruux mooy baayam ci wàllu saay saay ak naa fiq dafa wax ni Seydina Abdullah ibnu Abba Seydina Abdullah ibnu Omar loolu yi mu def biddaa la boo xam ni moom moo ko njëkk a def bi maana ibnu Taymiya bi muy wax ni saxaaba yi dañ daan toggoo ay biddaa mu tudd ci turu Sayyiduna Abdullah ibnu Omar ibnu Alxataab radiallahu anhuma daf ko tudd ba ni moom moo daan dem di taxarri musallayaati nabi yi mu ni te loolu saxaaba yu njëkk yi def ñu mag ñi defuñu ko woon waaye bidaatun ibtadaaha omar waaw kay waa ji mooy omar siise wala moussa siise moussa siise la tudd moussa siise mooy wax wax juré ji waaw xamoon naa ni lii moos moussa siise lay war a doon sama xel demoon na ci moom waaye bëgguma woon cee dem ak njort moussa siise mooy wax lii léegi su fekkente ni dem di fekk barab bu nitug yàlla wala bi yonent masa jaamoo yàlla nga jaamuwaat fa yàlla ngir lam fa jaamoo yàlla bu fekkente ni shirk la lislaam da koy tere kon bala ñoo wax waa daaka ji wala waa fenn na dem ci abdullah ibnu omar lu mu ko àttee rek ñun bu ñu ko àttee ñu nangu ñun waa daaka ji lépp lu Moussa Cissé mii wahabi bu xeeñ bii àtte sayyiduna abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu anhuma ñun d'accord nañ nañu àtte loola bu fekkee li li la mu def lu jaadu la lu mu am yaakaar la di ci wut yàlla mu àtte ko ca loola ñu ni loolu la dañoo am yaakaar yàlla di ko wut bu fekkente ne da ko àtte ni moom ab mushrik la nañu nañu jiital doog cee teg keneen comme ciy teg en tout cas l'islam da koy aaye moom doyut na wax fan la ko aayee bokkaale la tamit du dëgg ndaxte Seydina Abdullah ibn Omar jombante naag di def genn xeetu bokkaale mi ngi nii defu ko kenn ñemewu ko wax moom moo ko njëkk a wax moo ko njëkk a wax te nag waxul génnug dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu génnee màkk jëm xuneeri abu waaqir allaysi mooy nettali mu ne dañoo romb bokkaalekat yi ñu yoroon ak garab bu déem goo xam ne dañ fa daan wékk seeni arme léegi nag ñu ko daan tuddee baatul anwaat mu ne ñu ne yonent bi sallallahu dafa net li mu ni yonent bi sallallahu alayhi dafa jóge Madina jëm Makka romb ay yéefar yoo xamante ni bii dañuy jaamu xërëm nekk ci seenu garab goo xam ne ci la ñuy wékk seeni ñu koy wax zaatu anwaatin zaatu anwaat ñam àndaloon saxaaba yi ni ko ijaal lana zaata anwaatin kama lahum zaatu anwaat mu ni ñoom ay jaamukati xërëm lañ yoo xamante ni bii dañ doon jaamu ay xërëm ñi ànd ak yonent bi ci saxaaba dañuy doog a dugg ci diine ji baat boobu aw fen la ma yëgal leen ko ñi ànd ci yonent bi dañuy doog a dugg ci diine ji baat boobu aw fen la ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa bi iqra wàccee ci moom toogaat na fukki at ak ñett ci biir màkka doog faa jóge dem madina gannaaw loolu lay doog a jóge madina pour ñëw waroon a defi ci umra wala ziyaara ba yéefari gàllankoor ko bañ def seen waxtaan wa ca Xudaybiya kon ñam àndaloon mënu ñuy doon ñuy doog a dugg ci lislaam bi daf koy bëgg a dugal noonu pour fen dafa bëgg a indi saxaaba yi ci su ñu ñàkk solo ñu tuuti ñu woyof ñoo xamante ni bii lu la neex ci réer nga askan ko ci seen kaw foofu la bëgg a yóbbu saxaaba yi waaye saxaaba yi nekkuñu foofu tey it dégg seetlu leen li mu bëgg a li mu bëgg a dendale ñette daakaja ñoom ñëpp ñëpp ñëpp di àndandoo di wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoom ñëpp di ay jullit di ay tànneef dem foofa di wuti lu neex yàlla nan la leen mën a dendale méngale leen ak ñoo xam ne dañ leen a romb ñuy ñuy jaamu ay xërëm xam nga boo dee dendale da ngay dendale yu mën a dend mu waxidun ak benn musrik nga bëgg leen a mu xaarala benn bokkaalekat ak benn wéetalkatu yàlla nga bëgg leen màndaxe ba xam nu ñu demee loolu mënta nekk maanaam ñoom caay-caay gi ñu saay-saay ak mbon gi ñu bon ak réew gi ñu réew moo tax mu bëgg a askan waa daaka ci comme ay bokkaalekat waaye gannaaw moo àtt na jël saxaaba yi di leen tuutal ba ni dañuy doog a dugg ci diine ji ñoo xamante ni bii daanaka bañ duggee ci diine ak léegi tuutee ko manqué ñaar fukki at tuutee ko ko manqué ki ko xam taarix da xam ni waa ji ku saay-saay la Moussa Cissé nii ku bono ngi nii ku yées Moussa Cissé al Wahhab yi day fen rek day fen rek léegi yéef maanaam jullit ñu doon sàkku ci yonent bi pour mu defal leen zaatu anwaat zaatu amwaat ak ak garab la goo xamante ni bii yéefar yi dañ fay bokkaale léegi fan la julliti waa daaka ji di bokkaale ñoom ak kan kan lañ boole bokkaale moom faw ñaara koy séq dañ naan lii de diwo ko jagoo woon léegi boole nañ ko ko diw waa daaka kan kan lañ boole li ñuy def ñoom la la la lam yaabudu wala yaabuduuna wala yaabudu illa allah al wahid walam yaqtadu illa bi rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñoom tawxidu taati lillahi moom lañ nekke wa tawxidu l iqtidaai bi rasulillahi maanaam wéetal yàlla ci jaamu wéetal yonent bi ci topp boole wuñ ko keneen mag ak ndaw góor ak jigéen sëriñ ak taalibe waaw léegi lii moo ko naqari xam nga wahaab yi dañoo am ndigal lu leen bàyyi ko ci seeni chef ni leen tere leen jullit ñi dajaloo benn xeetu daje buñ ko may jullit ñi rawatina luy màcc ci leen di dooleel ci seen wàllu diine ndaxte bu diine ji amee doole day tax ñu tëyee fër yi te kon buñ leen tëyee musiba am ñu koy teel jaarale ko ci waxaabi yu ni waaye xëy xaata table ngeen ne leen ko continuer déglu. nee na ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu zaatu anwaat comme ni ko yéeféeri amee maanaam place boo xam ne ñu ne dem dañ koy am di ca barkeelu yonente bi sallallahu alayhi dal di allahu lii de ay yoon la yéen de wax ngeen comme la niti Moussa ya waxoon Moussa niti Moussa ya lan lañu waxoon Moussa defal ñu yàlla comme ñoom ni ñu amee yàlla aywa léegi lii de ay yoon la ji moom benn fenkat la bëgg naa lëntal wala xamul li muy wax te foofu bi gaa yi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ij'al lana zaata anwaatin kama lahum zaatu anwaat yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dani allahu akbar ci beneen riwaaya bu ni subhaanallah gaa yi Muusa ya de nii lañ fi waxoon Muusa ni ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yow Muusa wutal ñu yàlla ju ñuy jaamu mu diw xëram comme ni ko ñee ame dijaamu ay xiram Moussa ni leen innakum qawmun tajhaluun yéen a réer yonent ba teg ca mu ni yéen de da ngeen topp la tattabianna wala la tattabiunna sunana alladina min qablikum yéen de faw ngeen topp yoonu gaa yi leen fa jiitu lii xamul lu muy tekki faw ngeen topp yooni gaa yi leen fa jiitu woon xamut lu muy tekki moo tax ma lii de ay yoon la waaye yonent bi la mu wax mooy giñ naa ci yàlla ni yéen saxaaba yii da topp yoon yéefar yi fi jiitu woon démb waaw ndax nag li muy tekki mooy saxaaba yi dañuy for yoonu yéefar yi fi jiitu woon di sàkk fu ñuy jaamoo keneen ku ñu jaamu ku yàlla bu dee zahirul kalaam loolu lay junji waaye nag ci biir firi firi loolu te nag la muy firi dëgg-dëgg nanguwuma wahaab yi bu ko xam loolu ahlu tasawuf ñoo ko mën a xam te boo demee ci nass bi da ci fekk yonent bi ni waat naa ni da ngeen topp tànk ñi leen fi jiitu woon ñi leen fi jiitu woon nag fan jaaroon mooy ijaal lana daatu anwaat am ay daatu anwaat ak di wax ijaal lana ilahan ndax nag sahabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam def nañ loolu ak est yonent bi giñul ni ko def giñ na ko ndax def nañ ko buñ ko defee kon léegi bu fekkee saxaaba yi def na ko ana kon lu loolu di wàññeeti bu fekkee dañ koy wax waaye bokkut ak li li nga ko déggee lan lay firi kon dëgg dëgg dëgg loolu maa ngi ciy déglu bépp wahabi bu bu bu góor mbaa bu jigéen bu mat wala bu bu bu bu motti kenn ci ñoom xamu loolu xam-xam loo xamante ni bii ahlu tasaw ñoo ko jagoo ñoo koy xam kurit ñoom doo ko xam te nag coowa loolu bari ak saña xalante mën naa bari waaye lii moom ñoom duñ ko weesu rëdd wii rëddal naa leen fi ndul jéggi Musaa ne leen ñu réer ngeen ñii ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow itam defal ñu ak garab gu mel nii ñu itam ñu cee ñu fay dem di ci barkeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niroo nirule maanaam niroole ñaar yi ñii dañoo santoon ñu defal leen yàlla muy xërëm bu ñuy jaamu ñii dañoo sant ñu defal leen fu ñuy barkeeloo ndax place bu ñuy barkeeloo ci sharia dafa fekk ne moo war a rëdd nit fi dañ fiy barkeeloo lu mel ni euh, Kaaba ga dégg nga day kàcc rek am na benn yi boo xam ni dafa doon sàkk ci yonent bi mu ñëw këram jullil ko fa ci palaas pour ñoom bu fa jógee ñu jël palaas boobu suñ dee jullil ci kër gi jullee ko fa na jàngi siiratu rasul foofa du kaaba gi foo xam ne ab saxaaba moo wax yonent bi dañ lay ñaan nga ñëw suñ kër defal ñu fa ay ñaari rakka rek soo fa jógee ñun danañ xam na ñuy def yonent ba ñëw defal leen fa ñaari ràkkaa ñu continuer nag di fa jullee toujours day day day wax rek gis nga gis nga bu dee ci barkeelu fañ yaakaare barke des tee barkeelu loolu moom waa bi tuut na ci tere ko te it baatub defal ñu zaatu amwaat ñu ciy barkeelu saxaaba yi waxuñu ko munta indi benn benn texte bu jege mbaa bu sori bu gudd mbaa bu gàtt buy tegtale ni saxaaba yi dañ ciy tudd baatub ñu ciy barkeelu xam nga comme que bëgg naa weddi dara te lim mu bëgg a weddi amul ci nafs yi day samp day sampal boppam loola te ku weddi ku bëgg mbir mi leer la laajal ustaas xalifa mbuub ni ko lan mooy aaday wahaab yi mun la wahaab yi day créer benn qadiya day créer benn situation boo xam ne moom moo ko indil boppam nii nii nii commencé nag di ko étudier di ko yëkkatee ka daaneel di ko jubbanti fekk moom moo ko créer moo ko tegal boppam amul puisque fu ñuy barkeeloo benn benn benn saxaaba tudd ko amul benn nettikatu xadis tamit bu nett li xew-xew bi bu tuddaale ci baraka kon nag moom nan la ko ci mën a tudde que su ko ci tuddul du mën a dal ci kaw waa daaka ji te kaw waa daaka jee ko tax a jóg waaye daaka ji moom tardé nga da ngaa yeex a jóg damaa yaakaar ni bu fekkonte ni moo nga am ca say maam yëla jiituwoon ñu jógoon ca xëy na ca la doon tane waaye bu dee yow moom da ngaa léegi euh, la la la euh, euh, la assaxaabu wala assaxaaba nabuxul kilaab ay xaj yuy baw mun tax wàññi dara aw xiin wu fees dellakum ndox fas yéene ko tawi fa ko yàlla yebal siin yàlla mi nga xam ne moo moo moo mooy jiital aw xiin yàlla mooy jiital bopp mooy jiitalal boppam aw xiin bu ko defee fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha xiin wa riddi war a tawi fa yàlla soob mu jëm fa benn bandi international boo xam ne fenn rek lay liggéey ñu koy wax Moussa Cissé alwahabi yaakaar ni mën naa dogale xiin woowee dekki fi naan ko bàyyil xiin yi mu jàll tardeel sa bopp la déglu leen ko moo xiin wi ba xam boo bañee tooy booy wan nga fat fatu fat say bokk boo bañee tooy booy wan nga fatu te fat say bokk bokk daaka ji départ na te incha allahu taala tukkital àdduna de moo koy génne moo koy génne ci Sénégal te nag dana ko wàll sax nag yeneen i réew ndaxte leeru turuq suufiya yi moo fa jolli te dootu fay mukk ila an yarisa allahu al arda wa man alayha euh, kaaba ga noonu xajrul aswad ñu foon ko waaye loo xam ne charia rëddul ne fii dañ say barkeeloo ku fa barkeeloo bal yaa ngi tàbbi ci bokkaari ci boppam maanaam nga jàpp ne place tel am na barke te war naa faa dem di barkeelu loolu ci boppam ci bokkaale lay dugg moo tax Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu moo ñëw ci Omar ibnul Xataab ngi leen di xamal ni day fen puisque li tax muy fen mooy sayiduna abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu anhu moom moo daan topp musallayaatu nabiyi mu koy tànn di ko seet pour julli fa lu mu ci jublu bu fekkee ñeme naa askan si moom bokkaale rek na jàll te wahabi loolu du ko tiit puisque nag dañ dul jàng du ñu jàng te du ñu bàyyi dañuy wax rek léegi bu kenn ragal a dem siyaare fu mu am yaakaar man de léeg-léeg ma jaar ci palaas sax man sama jëmi bopp mii ba ëllëg ma jaar fa dafa barkeeluwaat ah ab jullit laa ji ab jullit laa damaa am wasnu fa yàlla am fa xiima bu rëy du ma sama bopp waxuma la samay sëriñ wala samay mag wala samay baay waaye sama jëmmi bopp ji danaa jaar ci barab ëllëg ma jaaraat fa ndax maa fa jaaroon démb fañakaa def te loolu li ci taarix nettali aka moo bari waaye nag alwahabiyatu humul wahabiya xamuñu tey duñu noppi tey rusuñoo nekk di fenal yàlla di fenal taarix di fenal yonent bi di fenal jullit ñëpp ñëpp rusuñu ko yarasuñ ko tàyyiwuñ ko ah waaye nag nañ leen bokk déglu ba xam fan la wàññi leen di mujj ki bëtam léegi mu ngi jublu si nag ci war a indi euh, garab ga nga xam ni moom la ñuy wax sajaratu ridwaan sajaratu ridwaan mooy garab ga nga xam ni fa la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama doon jaayanteeg saxaaba yi ci ñu war a xeex ak waa Màkka bu fekkee xibaaru rey nañ Ousmane sax na ndaxte yonent yàlla muhammad ba mu demee Màkka ba mu jógee Màkka gàddaay dem Medina dafa am bis suñu boroom wan ko ni ko da nga dugg masjid al haram yaag ñi nga àndal inchaa allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqaffirina laa taxaafuun ba mu yewwoo bëgg gum bëgg màkka tax mu daal fabu sant saxaaba yi ñu ñëw moom pour ñu dem ziyaare ji néegu bi yàlla ba mu xam le ni xeexiwul xuloo jiwul fayu jiwul deful lenn waaye day dem ngir ziyaare néeg bi bi ñu ñëwee moo ki saxaabaam ba jege ci màkka am na fu ñuy wax alxudaybiyatu am na garab gu fa nekk ñu dal ca wetu garab ga kampe fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël sayidna osmaan ibnu affan radiallahu anhu boole ko fukk ci saxaaba yi ni leen egg leen màkka ngeen xamal leen ni leen damay ñëw pour ziyaare si néegub yàlla bi xeexuma xulowuma fëyuwuma tooñ ba mu jógee moom Ousmane ba yegg waa Màkka daal li koy téye tëj ko ci néeg moo ñam àndaloon ba pare déclaré ni rey nañu Ousmane ba xabaar ba yegsee ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu woo saxaaba yi bañ ñëw mu ni leen maa leen ni woon xeex taxumaa jóg maa ne maa leen ni woon it jëru sax ngeen di yor ngànnaay yi geer yor leen ngànnaay yi kuy dox ci àll rek jaay si wala yu simple waaye nag li li li xew dégg ngeen ko nee nañu rey nañu Ousmane ah suñ ko reyee nag moom duma ma ñibbi ku ñibbi damay xeex ak ma bëgg ngeen ñëw nag ñu jaayante ko ndax waaju ñu woon ab guerre ñëw leen ñu jaayante ñu jaayante ca ron garab ga nga xam ne ba ba ñëpp jaayante ci mooy dañuy xeex ba ba ba gañe mbaa ñu dee waaye kenn du daw Seydina Muhammad daa yëkkati loxo càmmooñam ni loxo Ousmane a ngi nii maa ngi koy jaayante waaleel daal di koy tapp ci loxoom ndeyjooru boppam. nga xam ne foofu sirru bu rëy fii fi mooy yonent moom moom yaramam yëgul ne Ousmane faatu na ku faatu dara waratu la ba ngay jaayante waaye nag waxu waxandi wu ci dara waaye xam nga ni. kafaatu ñu naan dama koy jaayanteel mu bokk ci geer bi ba yonent ba defee loolu waa Quraysin dégg ni yonent bi jaayante naag saxaaba yi pour xeex ak ñoom te xam nañ kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xajul ci ñoom daje nañ Badar ñu daal di gaaw yónni yeneen ndaw ni leen daw leen ne leen ko rëyuñu kenn Ousmane nañ koo kii ñu ko téere waaye rëyuñu ko ndaw ya dikk wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni saxaaba yi téye leen leen ba keroog ñuy gis Ousmane doog leen a bàyyi garab googee ñu doon jaayante nag ca roon garab ga alquran dafa wàcc tudd garab gi laqad radiya allahu an almuminina id yubayiunaka taxta alshajara léegi nag ci garab googu am na lum ci bëgg a wax duma ko ci jiitu waaye dama koy déglu ba kàddoom daanu ma won leen bu wóor li xew ci garab gi dëgg dëgg dëgg lu bokk teg nag lii muy wax moom xataab radiallahu anhu bi muy dem màkk ci yoonu màkk bi mu gis nit ñi di jàdd mu ni ñuy fuñ jëm ñu ne ko dañuy dem ca garab ga nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaayanteeg saxaaba yi te borom bi di ko tudd ci alquran laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara garab wax ne gërëm na jullit ña fa jaayante woon nit ñi dem naan dañuy siyaare garab ga ak dañ koy barkeelu Omar dafa wut ab daggkatam na ko daggal ma garab gi waaye da yemu ci daf leen a wax ne lii moo alag ñi leen jiitu woon mooy dañ doon topp seen jeexitu yonent yi di ko barkeeloo ak di si jéem def ay jaamu yàlla mu waaw léegi pour wax leen ni loolu c'est pas vrai ay faux la ay fen la rek alwahabiyatu ila alkadibi ahda min alyadi ila alfam euh, boo demee ci tafasir yi mën ngaa jël euh, addurul mansuur fi fi tafsir bil masuur bi jalaalu bu jalaaluddin assayuti nee na dani ibnu abi shayba dafa nett li ci musannafam mu ni déedéet ñëw na ñëw ci buxaari yi imaam buxaari yi la ñuy jël sax mu mu mu gën a gaaw puisque tafasir yi loolu ñuy wax no mu mu mu mu xaddisuun yi tamit dañ dañ koy wax te mu xaddis li gën a bari bu dee ko demee ni ki Buxaari yi silsilaam fi muy jaare du bokk ak salaasil yi nga xam ni ci la eh, mufassiruun yi jaare léeg-léeg léegi Buxaari yi dani Taariq ibnu Abdurahman dani man dama jóg jëm Màkka pour aji ma romb ay nit ñuy julli ma ni waaw jullikaay bii bu mu doon ñu ni ma fii mooy garab ga nga xam ni ci ron ci ronam la yonent bi sallallahu alayhi wa jaayante wana ak saxaaba yi bayatu ridwaan ba ma fa jógee ma dem ca Saïd ibnul Musayyab mi nga xam ni mooy sayyidu taabiin ma nettaliku Saïd ni ma ah, man de sama baay nee na ma moom bokkoon na ña doon jaayanteeg yonent bi ci ron garab googee sama baay nag dani ma woon ñoom bañ jaayanteeg yonent bi ka garab ga ren déwén bañ dikkee bëgg a seet fa garab ga nekk xamatuñ ko kenn ci ñoom xamul fu garab ga nekk Saïd ibn Musayyab ni ko ah saxaaba yonent bi de kenn kenn xamatu ci garab ga fu mu nekk ñoom ñu xam ko kon de ñoom bari nañu xam-xam lii mi ngi ci saxiixul Buxaari boo demee ci tafsir ibnu kathir tafsirul quraanil azim da ko ca fekk ba tey boo ñëwee ci maalimu tanzil mooy tafsiru albagawi da nga ca fekk mu ni sayidna umar ibnul xataab foofe garab ga nekkoon garab googu saxaaba yi jaayante woon ak yonent bi ci ronam gannaaw bu fa garab ga jógee Seydina Omar dafa dikk ba fa ba tolloo fa garab gi nekk mun waaw garab ga fan la nekkoon na ci ñam àndal ñii daan ko fële la nekkoon ñi naan ko déedéet du foofu de fee la ñi naan ko déedéet garab gi nekkuloon foofu ñu bari ñii ni fii ñii ni fële la ñii ni du foofa wuute ga bari yoon Seydina Omar leen dem leen garab ga dem na siiru qad zahabati shajaratu boo demee ci maalimu tanzil muhiddin abu muhammad al husayn ibnu mas'ud al baghawi boo ca demee da nga ci fekk lool yi li ñu doon jéem a làqatu naan jaabir ibnu abdullah xam na fa garab ga nekkoon waaw xam fa garab ga nekkoon ndax dàqonte naa garab ga jóge na fa jaabir ibnu abdullah gannaaw bu mu silmaxaa bis nee na leen man de bu mu bu mu gumbuwul woon danaa leen mën a woon palaasu garab gi law kuntu ubsiru la la araytukum makaana shajarati su ma doon gis de danaa leen mën a wan xam xanaa ki danaa leen wan palaasu garab gi xanaa saxal na ci biir waxam ne garab gi nekkatu fi njabu fa nekkoon danaa bu ma doon gis wan leen garab gi aywa Saïd sa Musayyab waxoon naa la ko léegi nee na sama baay nee na ma man bokkoon naa ci ñu doon jaayante ak bi ca garab googe sallallahu alayhi wa waaye at mañ ko defee ca déwén sa bañ dikkee doon umra ji munuñoo xamante fa garab ga nekk kenn ci ñun xamante fa garab ga nekk lii daal su fekkente ni moo am sawaay li muy wax nañu wax fan la nekk te boo demee ci at tahrir wa tanwir ab tafsir la ibnu ashur moo ko bind da ci fekk lii ma la wax déglu leen sax ma waxal leen xadis bi ci riwaaya bi nga xamante ni bii moo ñëw ci saxiixul buxaari yi ma tàmbalee ko ca bopp ba buxaari dani xaddathana muusa xaddasanaa abu awaanata xaddasanaa taariqun an said ibni almusayyabi an abihi annahu kaana mimman baayaca taxta shajara fa rajacnaa ilayha alcaama almuqbila fa amiyat alayna Buxaari nee na Saïd ibnu Musayyab moo jële ci baayam ni ko sama papa nee na man bokkoon naa ca ña doon jaayante ca doon garab ga ren déwén bañ dikkee garab ga mënuñu koo gis xamatuñ fu nekk boo demee ci saxiixul buxaari da nga ca fekk lool yi beneen ba tey ci buxaari yi xaddasanaa mahmudun xaddasanaa ubaydullahi an israila an taariq ibni abdirahman qaal intalaqtu xaajan fa marartu bi qawmin yusalluuna fa qultu ma hada almasjidu qaalu hadihi alshajaratu xaytu baayaca rasulu allahi sal allahu alayhi wa sallama bay'ata ridwani fa ataytu saida bna almusayabi fa axbartuhu fa qaala said xaddatani abi annahu kaana fi man baayaca rasula allahi sala allahu alayhi wa sallama taxta shajara qaal fa lamma xarajna min alcaami almuqbili nasinaha maanaam unsinaha fa lam naqdir alayha fa qaala saidun inna asxaaba muhammadin sala allahu alayhi wa sallam lam yaclamuuha wa calimtumuuha antum fa antum aalamu lii mooy li am imam Bukhari nett lu ñu ko Moussa Cissé alwahabi alwahabi addaal alkadib hada alladi alkadib euh, ila alkadibi ahda min al yadi ila alfam moom dégg ngeen lim ñu waxal dégg ngeen lim ñu waxal te nag dara wéru ci nasinaaha maanaam mooy nasina mawdia alshajara fa lam naqdir alayha fa lam naqdir ala maarifatiha fa antum aalamu qaala dalika munkiran alayhim iddiaa ilmiha dafay wax loolu pour pour pour pour pour weddi weddi ci ñoom woote gi ñu woote ci ni xam nañ garab ga lii mooy xulaasatu wax bi ak nag lu njool tàlli raw wax wax wax dafay fen dong dolli ci lim doon fen daldi ne fu leen julli fekk julli leen kon jëmmi jël benn place ngir ne jeexintalu nit ku baax moo fi jaar ak yu mel ba tax nit ñi jël ko di ko barkeeloo loolu ci boppam bokkaale dafa nekk ci biir maanaam loolu ci boppam ak bokkaale la boole kook nag biddaa yi di dellu si waaw benn bokkaale nekku ci te ku ko wax wax nga la ci gannaaw dëgg ba noppeet moom mii koy wax nii mënu ci indi benn firnde bu mag wala bu ndaw te it xeex ci lislaam xeex ci daaka ji moo ko ci sax a jóg waaye bokkaale nekku ci te dalil bi mooy sayduna abdullah ibnu amar ibnu alxataab moo ko def te it bi mu koy def wé wéetu fa yeneen saxaaba yaa ngi dund te nag dégguloo ku ca wuuteeg moom mbaa wax ca dara leneen lu fa wax ci gannaaw bi ay bëgg bëgg bëgg ak bëgg-bëgg boppam la ak i bànneexi boppam léegi nag dañuy toog balaa ak bànneex ba nga ba nga wér bis boo wéree doog a tàmbalee di faje waaye ku wéree di tëloo dem di fajaate su ko defee ma àggale maa ngi ñëw li ci des léegi bu soobee yàlla. léegi nag mi ngi dugg si ci bëgg seen bëgg-bëggi bopp ba tey nañ ko bokk déglu su ko defee bu waxee lim bëgg ba noppi. man danaa leen leeral li muy wax lan moo ciy dëgg ak lan moo ciy ak neen euh, ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi dafa tere takk ay bagages tukki dem ci ab bërëb di fa jaamoo yàlla ngir ne bërëb ba moo tax nga dem fa di fa jaamoo yàlla loolu da koo tere waaw loolu xam nga jullit gannaaw dafa xas wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fu mu mas fu mu mën a tee nekk ci kaw suuf si yàlla si faaw mu jaamu fa yàlla jaamu yàlla sax la fay defi wa xaysuma kuntum fa wallu wujuhakum chatra xanaa dooni yonent bi day tere ku takk ay bagage di tukki pour jaamu ji yàlla kon ku te tukki mënut a ñàkk kon kuy tukki da ngaa war a accès jaamu yàlla ba ñibbisi ndax kuy tukki da ngay accès yàlla ba ñibbisi man damay dem Dakar damay seeti sama bàjjen wala sama xarit mais sama yéene mooy du ma demee Dakar damay jaamu yàlla su julli jotee damay julli damay wax dëgg bu ma fa lu baax fekkee dama dama cay ànd bu ma fa fekkee ku ñuy seeti ku feebar ma war a dem damay dem bu ma fa fekkee rob damay dem xanaa du ma ne damay tukki kon du ma ñëw di fi jaamu yàlla te xanaa du ma ne kon bu ma dee tukki du ma yéene jaamu genn jaamu du ma yéene genn jaamu yàlla yonent bi xam nga ñu waxaa bii la jaamu yàlla di gêné waaye lislaam ñàkk a jaamu yàlla moo koy naqari waxaa bi ay jaamu yàlla yu bari moo koy naqari moo tax mu bëgg a xatal mbir mi léegi damay tukki damay dem ndakaar ah man kañ ngay dem Dakar man maa ngi fi bëgg a dem euh, incha allah taala talaata kañ ngay ñëw mën naa am ma ñëw dimanche léegi Dakar ajjuma euh, jot na du ma du ma julli ji juma puisque kon su ma julli jee juma day mel ne julli ji juma moom ma tax a ñëw te yonte bi day tere loolu foo ko mës a lu mel noonu foo ma mës dégg ku la ko wax xoolal ma yii fen xoolal ma yii rëddal sa bopp aw rëdd wu ñuul kub rëddu naari jahannama wér péng ba pare bëgg ne yàllaa ko santaane ah Moussa Cissé yaay saay saay dëgg dëgg te yaa ñeme yàlla yaa di yaay corona dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg corona dëgg dëgg virus kii mooy corona dëgg dëgg dëgg dëgg seetul ma ji wax rek xoolal mi ñuy ràbb yu bon yu ñaaw ba pare mu ne yàlla déglu leen ko. ba mu des ñetti place nee ñetti place rek ci la loolu dagan. laa tasaddu rihaalu illa ila talaatati masajid nee na du dagan nit ki takk ay bagaasam tukki dem ci ab palaas naan day jaamu ci yàlla ca palaas ba lurul ci ñetti palaas yi te mooy masjidul aqsa muy Palestine ak masjidul rasul ak jàkk yonent bi ak masjidul haram muy kaabe gi ñetti palaas xam nga yonent bi ba muy wax jullee ko taxoon wax julli comme nga ni man damay jóge dëkk sàngam pour dem julli ji dëkk sàngam pour mu jar mujarradu julli ji kese loolu la ni jàkk gënewul moroomam lu toll noonu bu fekkee fi nga nekk am na jàkk jàkka ja nga ja bëgg a fekk ci beneen dëkk gënewul sa jàkk lenn lu jar ngay jóge sa jàkk di te dem xanaa mu doon jàkk jàkkay Màkka mbaa Madina wala baytul maqdis yooyu dañoo gën ci jàkka yi yooyu de moom bu doon da ngaa dëkk fu jegeeg ñoom <clears throat> julli jot nga ba fa sa jàkk jàkkay bopp dem ci jàkk yooyu moo gën ci julli la ko yonent bi tàmbalee ci la koy yemale léegi nag moom bu bu bëggee fen da koy yaatal tudd ci jaamu yàlla waaye bu ko tuddee xam nga la koy fenloo buñ doon guerre buñ ni woon dañuy xeex yéefar yaa nga ca frontière u diggante réew mi ak meneen réew jihaad lu mu doon ko kuffaara yàlla santaanewu ko kon jihaad lu mu doon jihaad bokkul ci yi gën a fort ci lislaam ndax da ngay banku sa kaw lal ni génn di dem ba ca ba ca jiha ba jëbha ba ca front ba loolu bu ma fi génnee dem foofa pour jaamu ji fa yàlla yonent bi dama koo xaraamal mas ngaa dégg lii lii wér na xam nga bam ba mu naree fen rek bi mu ci tuddee wàllu jaamu yàlla ab jullit dafa mënut a tàggoog jaamu yàlla ak fu mënti jëm soo dee tukki sax da ngay jaamu yàlla munoo ni damay tukki dootuma yéene jaamu yàlla te boo tukki xanaa da nga da nga décidé foo jëm xanaa da nga ni dama xombal laa jëm wala wala pekkees kër baay maas xanaa doo doo doo jekki-jekki rek dem saw yoon wala nga ni man dootuma tukki mukk ndaxte bu ma tukkee du ma fa mën a jaamu yàlla ndaxte tukki pour jaamu ma yàlla kenn du ko def léegi dama leen di laaj rek mbokk yi lillahi wa li rasulihi wa li dil qurba waa ji nga xamante ni bii amirul muminina da koo yebal ni ko demal ca dëkk sàngam la fa di asaka nga dajale ko indil ma ko ma man koo dugal fi ko lislaam dugal lu mu jóg dem ca dëkk sàngam pour dajale ci asaka kooku ndax jugul na ngir jaamu yàlla ndax njaamu yàlla sàngam tax koo jóg dem dëkk sàngam ki nga xamante ni bii dañ ni kat noon yi song nañu réew mi te waxuma nag noonu réew ak réew comme ni ñu tubaab yi séddale waxuma loolu waaye ñu ni ay yéefar nee nañ dañuy dugg ci réew mi kenn dootu fi waxati ashhadu an laa ilaha kenn dootu fi julli kenn dootu fi jaamu yàlla dañuy fay lislaam ña nga takku yor seeni ngànnaay dugg si nañu réew mi ba ña nga frontière sàngam ndax julliti réew moomu dañuy tëdd rek noppi am dañuy jóg fekk leen ca baram bañ nekk pour jaamoo ko yàlla gaa yi tontu leen bu ngeen tontoo wala ngeen xam li ngeen war a tontu da ngeen xam ni Moussa Cissé mi ku mën a fen la te nag gis nga li ma leen wax rek ñoom qadiya bu ñu mën a lijjanti amut ñooy créer seen mbir teg di bërëñ di di di di di ak di tëbëkkat di cëpp cëppi waaye bala lay cëpp cëppi rek waaye du naaw ñoo ñoom ñu ngi xot ci seen diine pour daaxi ko seen àdduna diine ji yàqu na te adduna bi du baax wahab yi dañuy xotti seen mbubbum diine pour daaxe ko seen mbubbum àdduna seen diine yàqu na te seen àdduna du baax waaye xam nga ni bu dul woon loolu jëmmi dàkk daaka ji rek singili leen pour wax lu ñaaw ci ñoom lii waa léegi lan la ci séentu ci lii ndax lislaam amul fu mu yem lu nit ci ci waxam ndax lislaam sàmmluwul aw làmmiñ ci deru ay jaambur daaka ja ñaata nit dafay daje yàlla yóbbu leen fa ak wut lu baax dama ni daaka ja ñaata nit dafay daje ñu ko raw fuuf raw ndeyam ak baayam gën leen a jub waaye gis nga ko fa mu gën a baaxe ñoom fa la ñu jéem a yàq waaye na niñ leen déglu place yooyu rek la nit ki moo dagan jullit ba takk ay bagaasam dem uniquement ca place yooyu ngir jaamu ji fa yàlla bu dul loolu bu jullit bi takkee ay bagage am ca place ba ngir dem jaamu ji yàlla ca place ba loola mu def dafay wuteeg diina lislaam da ko xaraamal kon de mbokk yi bu kenn jógati di jihaad yi bu kenn jógati di commerce ji di ko teg nag ci yoon yi lislaam rëdde jaarale fi nuñu commerce fi suñ borom subhanahu wa taala di wax ci suratul muzammil alima an sayakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fi l ard yabtaxuna min fadlillah yàlla xam na ni ci qiyaamul leyli am nañu ko mënut ndax dañoo feebar ak ñeneen ñoo xamante ni bii dañuy tukki ci kaw suuf si di wuti seen wërsëg wu leen yàlla wërsëgal mooy commerçant yi wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah ak ñeneen ñooñ dañuy xëy war seeni fas yandu ca toolu xare ba di guerre kon ñooñu ñëpp buñ demati bu kenn jógati këram di wuti wërsëg bu kenn jógati këram di xeexi ndax yoon yàlla ndax Moussa Cissé nee na loolu xaraam na bokkaale la ndax jaamu yàlla nga jóg uniquement pour dem ci benn barab moom ngir moom dafa juum yonent bi dani sallallahu alayhi wa sallam bu kenn ci yéen jël waruwaayam war ko jëm ci jenn jàkka ngir jullee ji fa lu dul mu doon jenn ci ñetti jàkka yii mooy jàkkay màkk walla jàkkay beytul maqdis ca Filastin wala sama jàkka ji ci Medina ñetti jàkka yii de ñoo gën yu ñoom ba tax na nga ba fa yeneen te mën a ñëw ci ñoom ku ko man man nga koo def waaye bu dara desul lu dul jàkkay ngayeen moo nekk nii yow fi nga dëkk fële la jàkkay paaleen nekk ñaari jàkka yooyu gënantewuñ lu jar nga bàyyi fi ji dem ci jële teewul nag boroom xam-xam yi nee nañ bu fekkente ne jàkkay paaleen kët mboola maa gën a bari te it ñoo gën a respecté ni ñuy jullee gën a tënku ci sunna bu boobaa mën nga faa bàyyi jàkkee nga yéen ña dem ci jële waaye foofu lañ ko tàmbalee foofu lañ ko yemale am amma jaamu ji yàlla kese waa gaa yi dox ak bokk ndax du jaamu yàlla jokk sag bokk jóge dëkk dem ba dëkk bu sori yenn ci àll fanaan ci àll ngir dox sag bokk waa ndax loolu kon moom nu lu ci diine wahabi yu ñu wax waaye gaay ala kullin maa ngi koy yemale fii gannaaw bu ma leen leeralee ni Moussa Cissé alwahabi kaddaabun ashir te it munta bañ a fen ndaxte loolu la nàmp moom la tokkamtiku diine wahabi la solu li ñuy xeex te mooy tasawuf mooy benn hôpital bi leen mën a faj beneen mun leen a faj puisque tasawuf dong la mënoon a bokk tasawuf tee wax lu dul dëgg tasawuf téel koo làmmiñam ba du ci mooy yàlla tasawuf téel ko xalaatam ba du ci mooy yàlla tasawuf tegal ko tànkam ba mu mën a doxal waxi yàlla jim ni wadaru zahira al ismi wa batinahu lenn lenn mënu koo may lool yi tegu ci yoonu yàlla di jaamu yàlla mel ne ku koy gis xam nga ne bu fekkonte ni dafa jàpp ni mi ngi gis yàlla xanaa du mën a boole xel mi nekk ci maa ngi gis yàlla ba noppi muy fen-fen yu rëy yi ba muy wax naan saxaaba ya àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy doog a dugg ci diine ji boobu yëg na ne mu ngi fen ba naan saxaaba yi dañu yonent bi nga wutal ñu garab gu ñuy barkeeloo boobu yëg na ne day fen ba mu bëggee comparé di jaamu yàlla ak ña ca ña garab ga di yéefar di bokkaale ak yàlla ba mu leen bëggee dendale yëg na ni waruñoo dend ba mu bëggee wax ni Seydina Omar dafa daggaloo garab gi ku ko dagg ku xam garab ga fu nekk ba mu koy dagg Seydina Omar mi ñëw di laajte fu garab ga nekkoon gaa yi ni ko xam ni fii la fii la mu ni garab ga dem na dox leen ñu dem nan la kañ la ko dagg mu mu ngi ko daggaloo Saïdul Musayyab baayam di saxaabi ni gu leen xam naa fu garab ga nekkoon nee ko unhu loolu man lay nan lay mën a saxe ak li li kii di wax fen yu rëy yii muy fen te xam ne fen lay génne nit ci diine innama yaftari alkadiba alladina la yuminuuna bi ayati illahi wa ulaika hum alkadibuun fen day génnee nit ci diine ji ba pare te mënu koo bàyyi xam nga lu ko ko lu ko ko yóbbe mooy dafa bokkul ci benn ci turuq suufe yi nekkoon la ko tariqa bay njëkk a tere mooy fen ndaxte jéego bi nit ki di njëkk a jéggi teg ko ci tànkam ci yoonu yàlla mooy wax dëgg bàyyi fen yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin ñoom nag ay wahabi yun lañ lii lañ fi nekke woon dañoo yaakaar ni nag pénc mi widd na waaye maa ngi ko doon wax ak ñi may jàngal léegi ni leen ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci kaw wahabi yun yi ci façon boo xam ni yéen xale yi su ngeen jàngul te góorgóorlu pertement dana am puisque wahabi yun yi ragal naa ni ñun dañ ñuy rey man personnellement jàpp naa ni wahabi yun yi dañ may rey léegi nag suñ ma rayee te fekk yéen li ñu war a jàng jàngu leen ko wala li ñu war a mel meloo ko melu leen ko day nekk pertement ci diine ji fen yii rek laa bëggoon wan leen ko boobu su ko defee nag maa ngi yemandi foofu maa ngi wéer sama jaasi su ma jege nag ndax xam naa ni wahabi yu ni du ñu bàyyi waaye fu ñu fi yëngale dara maa ngi ci seen kaw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu